Euh, de cette déferlante euh, bu Pastef de Farba force gendarme Matam titre foncier la bataille mais <laughs> Macky Sall l'air c'est clair. waouh exactement parce que euh, bi Ousmane Sonko demain, côté boobu non, jaar fa def Farba Guinne, na Ousmane Sonko Dina, on woon exactement fi, ça me la ba léegi bon puisque ni bon. puisque nii wan na ko wan na ko ne ko bon moo moom moo continuer di moom euh, kii moo continuer di moom euh, li nga xam se ni di euh, Matam ba léegi mais n'empêche que peut-être mën naa ne su ko moomee ci élection yii nii tôt ou ji hmm. parce que gis nañ fi yeneen fief gis nañ fi Fatick gis nañ fi Kaffrine ñoo xamante ne nii ñu ñu mel ni eh, xam nga fii ñoom Abdoulaye Daouda Diallo nekk xam nga mu demee ba Sonko baat leen fa kon peut-être mën naa ne Farba Ngom euh, mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi maintien ba léegi nii mais à tôt ou tard day hmm. perte fi nga xam seen moo di euh, euh, fiefam parce que so parce que tout tard xam naa ne pastef da koy da koy mujjee jëli yaa ngi doon sax gis naan Ousmane Sonko doon ko wax naan ko xam naan bii mooy nekk dernier euh, kii am bi dernier élection ah, bii la dernière élection moom bii mo à tout moment mën na nekk parce que Fallou bu waaw Sonko da ko défié woon Farba ne ko bii du sama dernier élection ah exact na ko ko concrètement il faut le reconnaître Farba def na un espoir sans doute force de la si non parce que loolu kenn kenn weddiwu ko quoi mën nañ ko ko nangul mën nañ ko nangul ne ko def

Farba Ngom Farba Farba Ngom commune bi la gagné département bi yëpp takku. département bu voilà exactement département takk ah. wala ñoo gagné département bu département bu bu bu bu bu bu kii nii bu bu bu bu comment dirais bu bu bu bu bu Matam. Réno Réno Ferlo. exactement parce que takk takk wala kanal kanal kanal la gagné Matam Réno Ferlo ak Goudiri. Hmm. ñett yooyu ñett la gagné ak euh, safula ñeent yooyu noonu ak Afrique du centre mu nekk cinquième bi voilà c' est c' est c' est vrai que ne bon wan na ko exactement ne ko sama fief la maa fi maa fi maa fi moom ba léegi mais comme ni ma la waxee rek euh, à force venir affaire yi day changé jiwaat day changé jiwaat parce que euh, bon fekkee ne moom damay comme li taxaw ma ma yaakaar ne Ousmane Sonko naan ko tay moy don mujj moy don ce ce dernière élection je pense que ni bu fekkee ne Farba Ngom manam mom laalewul wala taqewul ah, lu jëm ci lu jëm ci alalu askan bi bul fàtte ne dañuy teg haute cour de justice hmm. dañ koy tek assemblée bi dañuy tek haute cour de justice hmm. parce que haute cour de justice même Macky Sall sax épargné wu ko haute cour de justice da koy àtte